violence politique am fi fek Ousmane Sonko mom ci bopum sax gane si wul àddina la na n'est-ce pas donc c'est que nag dafa jël benen forme n'est-ce pas donc mais d'abord il faut ñu ñaawlu aussi violence yooyu parce que euh, ay bakkan rot nañ ci ay nit yo xamné ne am nañ ci gañu gañu yo xamné xeyna da leen di top seen giiru dundu ensuite am na ñoo xam ne dañoo aussi bien au niveau euh, des privés n'est-ce pas citoyens yi ak borom société, mais aussi au niveau de l'État parce que ay am na ay infrastructures yoo xam ne ci donc man euh, en tant que quand même ancien commissaire de police vraiment mënu ma cautionner loo xam violence parce que bon euh, nit mu ngi exprimer meram bon am na façon bu nga ko exprimer mais également quelquefois dafay fait de sës ba nga xam ni violence rek moo koy comme arme boo xam ne xëy na noonu la mun a fësale meram bon gis ko Sénégal gis ko fenen et souvent qui qui manifeste violence bobu day ko xam généralement il est en position de faiblesse donc xëy une arme bobu rek lay am mais effectivement amul kenn ko xam responsable nga vraiment ngay cautionner lolo, parce que fekk ni da ngay euh, xeex pour jiite rewmi

Euh, violence à mon effectivement violence à mon euh, acte de vandalisme au niveau de l'université à mon nom, aussi bien de la part des étudiants. par rapport à l'environnement mais par rapport aussi aux forces de l'ordre effectivement à un moment donné ils ont disons enfreint les franchises universitaires pour aller effectivement que étudiants il faut ñu vraiment pour violenter leen aussi quel mënu ko weddi xam ñu affaire cocktail molotov mais du loo xam ne si la fi Sénégal hein waaw ah, ñun ñi nga ni <laughs> yàgg nañu euh, vraiment on a vécu 68 et cetera ak année ci effectivement à un moment donné fekk manifestant yi n'est-ce pas xëy na amul woon yenn ampleur yi mais ñu ngi doon utiliser aussi euh, cocktail molotov comme ça c'est parce presque dans beaucoup de pays surtout vraiment y euh, yenn des yi quoi n'est-ce pas donc violence moom yàgg na fii xëy euh, forme bi mu jël léegi nii dafa xaw a gën a tar li tax mu tar parce que xëy na euh, yëf yi nekkatul ci adversité politique rek mais dem na ba presque atteindre li ñuy wax animosité politique ensuite euh, ñi ko gën a euh, taaral mooy ñi nga xam ne xëy na ñu ngi ci biir nguur gi aussi vraiment aussi di cultiver di ko nourrir. yaa ngi koy wax léegi violence yi aussi bu amee am na li ko peut-être war a mën a expliquer mooy présence ay personnes yoo xamante ne dañ leen gis ñu nekk à bord de <coughs> pick-up yoo xamante amul plaque d'immatriculation euh, ñooñu aussi yore ay gannaay ñenn ñi yore ay fetal di sox di jëmale euh, ci manifestants yi ñenn ñi yore seen ay jaasi seen ay gourdin euh, déjà est-ce que am na ci li nga xamante ne mooy procédure yu police war a respecter am na foo xamante ni dañ leen di digal ñu jël yenn gànnaay yi di ko utiliser ci maintien de l'ordre comme ay jaasi ay ay fetal ay armes létales yu mel ni ay armes de guerre non xam nga lu jëm ci respecter loi bi ci biir dëkk bi force de défense et de sécurité yi nous ñoo un monopole Nous ñom rek ñoo wacc ci terrain n'est-ce pas et principalement euh, à titre principal c'est la gendarmerie la police ñoo yore sécurité intérieure bon militaire xeyna ont des bu amé non bo xamné jogé na ci bité du ñu ñu ñu intervenir té que sax même dans le cadre de la sécurité intérieure nous avons aussi un troisième niveau d'intervention Les filles, bu ont ba de la police de la gendarmerie effectivement ñom wara mëna euh, wacc Bon, mais euh, affaire Nervi, euh, c'est depuis 2000. Euh, en fait, mun naa wax ni sax balaa 2021 euh, am na jamono yoo xam ne ay parti yoo xam ne amoon nañu fi seen i Nervi euh, waa socialiste yi amoon nañu seen i tonton n'est-ce pas euh, PDS amoon na fi ay calo bleus n'est-ce pas mais généralement ñooñu on les mobilisait pour défendre nu mu tuddati les intérêts et les responsables de leur parti mais doonu woon sax pour dem di attaquer ay manifestants bon mais li ñu gis léegi c'est des gens yo xamné euh dañ leen jox xaalis jox leen équipement euh, jox leen ay armes ñuy dem non seulement pour défendre ñom xeyna ñom sen territoire mais pour dem di attaquer euh, même bu attaquer doon attaquer il y a une partie ñu nous a comprendre mais ay citoyens yu honnête yu manifester dañuy dem di attaquer té euh, tonton kii nu mu tuddati nervis yooyu ñu ngi leen di gis à partir de mars 2021 bon man euh, jamono bi mako ko gisee dama ne dama si am gatch dama si rousse parce que nous won foog ni que police ak gendarmerie effectivement dinañu ànd ak pour assurer euh, le service d'ordre bon gis nañu aussi. est-ce que police dina ko yor ay jaasi wala ay armes de guerre. non non loolu loolu beaucoup si matériel maintien de l'ordre bon te. Euh, te dama ne euh, nu mu tuddati nervi yooyu euh, ce sont les hommes politiques ñoo leen dugal ci biir parce que quand même bu ñu demee ba nga xam ki nga xam ne le président de la république muy def tournée mu am ay nervi yu ko encadrer di solo solo bu wuuteeg bu bu bu police di am ay armes yoo xam ne uute na ak bu police di encadrer cortège du président de la république kooku beneen problème lay doon quoi donc vraiment que président de la république jox nañ ko jontukaay yu mot sëkk mhm.

parce que wane nañu alkaati boo xam ne dafa jóge si auto police taxaw jël nek en position tiré vraiment fat ben, xalé bo xamné drapeau rek la yore bon man sama bop dama ne li vraiment à moins que xeyna ñi ñi bëgg a deug mais kiko def war ñu ko mëna ragné pour sanctionner ko quoi. en 2021 voilà ne serait-ce que pour euh, euh, euh l'exemple xam nga ci la def ben contribution man koy titré 14 morts zéro coupable bon jamono y nag effectivement euh, dafa jël encore une forme les même responsable yi nga xam ñoom ñoo au pouvoir daanaka ça, ils l'ont reconnu à demi-mot parce que ñeneen ñu ngi wax ne way c'est des citoyens qui ont spontanément ils sont descendus pour défendre nu mu euh, le pays Hein? ñeneen ñi reconnaître que ça, c'est des militants ñu effectivement mais encore une fois c'est en marge de la loi te gis nañu fi nga xam ne foofu la ñu jóge gis nañu foo fi nga xam ne foofu la ñuy gaare ñu filmer leen ñuy def naka sudul noonu vraiment effectivement je crois que euh, li tax man mu metti ma parce que euh, dama gëm police dama gëm force de défense et de sécurité man non seulement alkaati la mais sama papa gendarme la donc am nañu réputation boo xam ne amoon nañ ko mosuma xalaat ni si sama euh, giiru dund sama carrière que vraiment policier dina mës a ànd ak nervi te loo xam ne kenn mënu ko weddi la moom moo fi nekk ñoom ñoo leen encouragé waxuma ne nag ñoom ñoo leen jox arme waaye nous ñoo encourager parce que waruñu ne a nangu sax euh, ñuy ñuy dennoo ak moom asuma laa léegi sax di bokk vraiment di def ay groupe mixte vraiment di dàq ay manifestants quoi loolu lu rusulu euh, et je crois qu'il appartient aux forces de défense et de sécurité vraiment de se ressaisir parce que la mission régalière de protection des personnes et des biens ñoom rek ñoo ko yeeyu keneen yeeyu ko keneen ko dugg nag si champ euh, dispositif sécuritaire bi ak ay ngànnaay effectivement vraiment dañ la travail. mais li nga xam disons que gëm nous, ko mooy xëy c'est parce que peut-être il y a des instructions des politiciens ñu leen wax ni euh, ñii bàyyi leen vraiment euh, ñu agir comme bon leur semble. d'accord bu ñuy déglu euh, ki nga xamante ni mooy Seydou Gueye yore kaddu APR Benno Bokk Yaakaar moom Seydou Gueye nee na ñi ñu gis duñu ay nervi mais ay volontaires de la sécurité est-ce que question bi dafay ñëwaat moi, est-ce que tu as pas Pape Makhtar am na sañ-sañ xëy suba ni des substituer à la place de. Euh, la police de la gendarmerie pour djema def li nga euh, service d'ordre non pas. comme je me précise, parce que tu volontaires de la sécurité mais c'est dans quel cadre. C'est parce que structure hein euh, police policiers, gendarmerie militaires, disons les volontaires de la ville de Dakar les ASP nga si nous nga des man ma au niveau de tout le Sénégal etc. vraiment donc am structure yo xamné même bu ñuy ñëw en assistance à la police aux forces régaliennes vraiment c'est dans un cadre juridique bu bu lèr mais nous, nous ñu tëb rek ay militants ñoo dina ay volontaires Nous sommes des volontaires, effectivement peut-être c'est les volontaires pour exécuter les bases besoins euh, de de leur commanditaire mais vraiment champ bobu waruñ ci dugg vraiment, euh, les forces de défense et de sécurité ont permis vraiment à un ramassis, à une ordre de sicaires et de délinquants, vraiment de, de, pénétrer les dispositifs sécuritaires. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que, la population, il est parce que les ne gens qui sont pour nous aar vraiment di xam les ñooy léegi di ànd ak di lëkkaloo euh, voyous parce que ay voyous mais bu ni ni ñi dañuy

Ou est-ce que c'est des instructions qu'ils sont en train d'exécuter parce que xam naa police bu baax nu muy fonctionner ay commissaires yu xarañ la fa nekk ay commissaires yu intelligents yoo ay commissaires qui sont vraiment am na loo xam ne vraiment dinañ xam ne lii yoon la wala lii du yoon lii jaadu na wala lii du jaadu damay ragal rek mu une commande politique que une autorité politique quelconque n'est leen effectivement def leen d'autant plus que je crois que c'était peut-être dans le souci de mieux appuyer les propos du président de la République xam nga bi le dialogue bi ce ne sont pas les forces de défense et de sécurité qui ont tiré sur les manifestants Nous, xëy aussi pour dëggal wax jooju xëy na moo tax ñu def mais vraiment aussi vraiment j'ai été très déçu quand même parce que euh, ay nit loo xam ne am expérience alors maintenant damay laajte rek comment nga pouvez liguer liggéeyee def communication sur un élément boo xam ne yow sookeewuloo ko liggéeyuloo ko support bi xamoo ci peut-être que tu l'as mis tu l'as eu au même titre que n'importe quel citoyen lambda léegi nga bëgg si def communication nga bëgg si def benn élément de langage boo xam ne da ngay convaincre vraiment ça aussi ça a été une grave erreur monumentale xam nga que ça dafa yemoon suñu biir rek ñu mën a wax nañu seet nous, ñuy masla nu ñuy fëranteel affaire mais c'est vrai que c'est au niveau national que vraiment euh, les choses ont été euh, la la manipulation a été mise à nu n'est-ce pas euh, France euh, euh, Inter, avec ses observateurs, avec ses systèmes d'images inversées, etc., ils ont pu avoir la vidéo au complet ensuite vraiment wax li nga des séquences. ci am mais ñoom ont dañoo jël séquence rek séquence boobu jamono vraiment l'entièreté du film et ça vraiment ça a été gauche et bon non seulement il y a la réputation de la police qui bo, entamé wu ñi as tuut li nga xam ne na leen ci ngëm-ngëm ci police mais loolu nax na donc amatul lo xam ne euh, bu ko police waxee xëy na dinañ ko gëm moo tax itam bi président nii dañuy enquête mais enquête boobu ñi ñu gëmuñu d'abord dañuy enquête c'est sous la pression de la communauté internationale n'est-ce pas waaw yaa ngi fàttaliku 2021 euh, Sidiki Kaba Sidiki Kaba ñëw na fi de manière vraiment officielle et solennelle, déclarer au peuple sénégalais que nous allons mener une enquête pour cette commanditaire que les responsables des actes meurtriers mais si ba ba donc euh, vraiment c'est un mensonge d'État manifeste et flagrant et vraiment déshonorant quoi donc l'Union aussi vraiment euh, Sénégal nous avons commencé à dire te vraiment man sama sama wàllu bopp comme ni ma la ko waxee sama dund lu bëri at yu bëri li ci ëpp si at vraiment maa ngi koy consacré police. te ensuite boole si comme ni ma ko waxee aussi ma nekk doomu gendarme donc ñooñu dama leen a gëm bugguma ku leen yëpp bugguma ku leen fonto bugguma ku leen di fooye mais ñoom aussi seen taxawaay ak seen i melokaan nañ ko seet nañ koy joyante moo tax dama noppi di wax ak ñoom parce que xëy na am na langage boo xam ne ñoom civil yi duñ ko mën a wax. nest parce que bu boobaa dañuy ne civil bi dafa contre borom tenue bi mais borom tenue ni man bu waxtaan ak ñoom je crois que euh, dinañu war a mën a nangu yenn dëgg yi daal. seen taxawaay euh, ñu jëm ko joyanti peut-être dina nous ñu di bouclier euh, comme ni ko ci manifestation gis nañ ci bu ndaw à peine euh, peut-être 10 ans lay au plus gis nañ aussi Nous jëm ñu ko def ko bouclier mi habitude est-ce que ci sen formation dañ leen ni face à un danger certain da di jël ko comme ça nit ñi non vraiment encore ci gatchi nga xamni ni man amna ko ci n'est-ce pas parce que euh, musuma xalaat musuma xalaat musuma xalaat ba kër bi ma koy gis té légui de sa dama né non li yàlla ba mu ay policiers sénégalais dal parce que euh, c'est un acte euh, c'est un c'est un acte majeur d'inhumanité c'est un acte majeur vraiment comment dirais-je d'immoralité quand même que ay policiers parce qu'ils sont dans une situation désespérée peut-être

Globalement, mais euh, ministre Bobo vraiment peut-être qu'il a été un bon juriste euh, un bon élément de la justice etc. mais vraiment c'est un piètre ministre de la euh, de de l'intérieur jamais on a vu un ministre de l'intérieur aussi aussi aussi aussi disons médiocre vraiment parce que ay à plusieurs reprises il di wax contre-vérité quoi souvent les gens di yóbbee mooy di justifier loo vraiment c'est injustifiable quoi donc une image bi ñu ngi wone y a une image, c'est kanam lañ ko n'est-ce pas bon je crois que même dans la communauté, voilà mais vraiment aussi loolu dafa dafa ñaaw kooku ñàkk respecter doomu droits la xam nga euh, guerre xam nga guerre dana autoriser ñu guerre mhm. ngeen di tirer etc etc. mais ci biir guerre sax am na règle yoo xam ne nit ki waru franchir voilà parce que quand même la dignité de la personne humaine est très très très importante n'est-ce pas donc ce euh, mbokk yooyu dama leen di wax ni vraiment euh, ci avec la rigueur la plus totale waaw policier moom doxaloo si liggéey nu mu war a bu fekkee ne sax nit ki tooñ na bu la neexee nga bañ ko yërëm sax waaye l'essentiel liggéey bi boo koy doxal doxal ko ba pare di respecter jëmmam waaw di respecter jëmmam et c'est possible Mon liggéey na, Bima ma 24 ans laa nekk man commissaire de police 24 ans j'ai pris ma retraite en 60 musuma saaga nit ndey musuma dóor nit musuma apes nit et pourtant j'ai occupé des services yoo vraiment ay tu yu donc vraiment euh, comme j'ai dit euh, dans leen koy wax la république le pays la nation mun disons servir jusqu'au sacrifice suprême mais un régime là il faut faire attention il faut le servir avec intelligence et lucidité un exemple rek la joxe ñun en 87 <clears throat> on était dans la police là nous avons ñu le parti socialiste là lan lañ ko defaloon waaye bi ñu demee ba nga xam ne ñoom yaakaar nañ le mën seen intérêt yaa ngi menacé mais dañ ñoo dàq ñun ñëpp sans état d'âme tout récemment avec boo le procureur euh, gay mais il y a une enquête le co capitaine Touré ou le colonel Mbeng, andilul mu félicité leen ci liggéey bu rafet mais bi mu demee ba nga xam ni caafa ngi xam lu wax capitaine Mbeng, pratiquement c'est un faussaire et que capitaine non non du commandant Mbengue et que capitaine Touré pratiquement andul ak xelam donc c'est-à-dire qu'à la moindre occasion ils vont vous lâcher c'est à vous maintenant d'agir avec une certaine intelligence mais imaginez-vous, des images vraiment euh, refaites tout. je ne sais pas comment ils vont réparer ça mais à dire, il faut éviter ça parce que ça entre dans ce que j'appelle euh, disons euh, une indiscipline tactique Vous savez, ne yow boo un professionnel vous avez 17 ans, vous avez des erreur du bruit. bon du ma que fi de di di dévoiler quoi parce que quand même je suis responsable mais euh, ce indi lu C'est c'est formation là lu koy indi lu bëri ci euh, encadrement bi la ñoom encadreur yi seen formation des na mais également lim bi des na li koy indi lu bëri aussi mooy léegi-léegi dañuy rax ay nit yoo xam ne duñu professionnel man am na jamono fii comme ni ma ko waxee man maa formé euh, kii nu mu tuddati HPI mais dans naa gis maintien de l'ordre police di utiliser gendarmerie nag da ko du ko def souvent mais gis naa police di utiliser ay ASP dans le maintien de l'ordre mais ça c'est pas normal ak lu koy indi aussi c'est-à-dire que police de c'est une spécialisation comme les la police judiciaire les renseignements etc. donc nous, nous, à institut unité constituée spéciale C'est entraînement formation théorique day dem formation pratique entraînement physique afin vraiment maîtrise psychologique endurance situation quoi n'est-ce pas donc c'est la am daal lu ma ci wax. Mmh. ba tey rek euh, ci euh, ñooñu nañu des euh, policiers parce que dégg nañ aussi ministre bi la télécommunication maître Moussa Bokar Thiam di avocat. Mmh. mu ni c'est pas parce que da ngay sol tenue rek nga doon policier que police. Euh, souvent dañ leen rax ci manifestation yi wala day am ay nit ñoo xamante ne dañuy sol ay tenues policiers di rax ci manifestation di kii est-ce que kàddu yooyu euh, moom mi ko wax yi euh, mesurer na gravité bi est-ce que tey jii kàddu yooyu du tax ba Pape Makhtar Diallo bu gisee sax bu sol tenue benn policier du commencer di réticent wak di jeter un peu la suspicion ci moom. di xalaat ni policier bi laa duddee. xam nga ñoom fois gouvernement bi dafa bëri ay ministres yoo xam ne ils sont plus que légers quoi vraiment à la limite je peux dire que c'est des farfelus quoi. Voilà, mais que tu te poses des questions qui n'a que le ministre, quoi. la responsabilité hein, appartient à celui qui l'a désigné dans ce poste-là, n'est-ce pas Police, effectivement, donne une délégation civile. Mais pour ligue civile c'est une façon. Là. mun élément d'intervention Vous avez des soldats badge signe distinctif ça c'est une obligation c'est une obligation n'est-ce pas maintenant mun diligence civile dans l'anonymat mais bu boobaa am une mission bu moi am ludo de réprimer am mission par exemple dans une foule vraiment mu dugg ci en civil n'est-ce pas di m'a identifié, par exemple le meneur le groupe de meneurs etc cetera liggéeyam bu demee ba def loolu dafay dem signaler ñi nga xam ne léegi intervention pour ne diw ak diw wala qui sol la qui sol la effectivement vraiment ñoo mën groupe bi je crois que bu ñu leen neutraliser yëf yi dina wàññeeku quoi loolu moy sen liggéey mais sol ce caaya sol ce def say après il y aurait ce fatal, mais ça vraiment, ça c'est la porte ouverte à toutes sortes d'abus. Parce que bu boobaa une citoyen bu ba nga ne dafa ci a aussi dañuy fakaru waaw te bu boobaa ku nekk day tiire ku nekk que tiire xam nga lu muy indi xam nga gis sax ci réseaux sociaux la ñu photo nit ko ne ko diw li ak li la li mom moy joxe renseignement mu du mu jël pour que nous donc il faut que euh, la police les forces de défense et les sécurités se ressaisissent que nous jël la sécurité euh, non seulement de ce pays là mais la sécurité des populations la sécurité des biens comme nous défendons défendre nous bi nañ ko défendre euh, aussi sénégalais etc. Nous et cetera mu bañ a am discrimination la confiance soit rétablie entre nous avec les populations parce que comme j'ai dit Euh, boo gisee suba may wax c' est que euh, bu titu njurukaay bi li tubaab di wax cordon ombilical bii boole police les forces de défense ak population moom laa bañ ñu dagg ko parce que bés bu ñu ko daggee bu boobaa beneen problème lay doon donc moo tax man léegi-léegi je m'autorise peut-être que dina am ñoo xam ne du leen neex mais léegi-léegi may wax loo xam ne xëy na si dëgg rek laa ko sukkandiku ko Vraiment. Parce que quand même, euh, moi, depuis 1987, là, a commencé d'intervenir sur la presse, etc., hein, nangam, Mais depuis 36 ans, quel monument avoir n'est pas possible parce que lu may wax si dëgg laa côté, teg si réalité laa ko teg te nit ki fekk ni li wax si dëgg nga koy teg bu boobaa ñii ñi xëy na si njalbeen bi duñ la ko nangul mais bu ñu demee ba ci biir aussi dañuy gis ni dëgg la donc force de défense et sécurité ak population ñoo bokk ñoo bok fa su sosaanoo nit ki bu demee ba sul tenu day dem di jité jak wala mu nek naayum et cetera wala muy diriger association et cetera citoyenne donc nañu xam ci population bi lañuy ñuy ci population bi lañuy ñuy quoi population bo aussi dama leen di ñaan aussi ñuy jox cër euh, police n'est-ce pas parce que monsieur am na est-ce que dina euh, mon commissaire bu nekkee euh, ministre bi euh, du ku sol tenue rek policier est-ce que les du dem ba euh, nit ñi sax bu ñu gisee ko sol tenue mën nañ ko respecté? nañ ko a respecté yaakaar ni que kii benn pamata bu sol tenue rek est-ce que mm. euh, loolu kàddu yooyu kàddu responsable la non c'est pas c'est pas du tout responsable c'est-à-dire que tenu dafa am ñu c'est réglementaire même tenu sax léegi dafa am commission boo xam ne moom mooy ne tenu tenue sangam la sol par exemple agents yi ngay gisee da nga fone ne dañuy jékki-jékki rek di dem di ñaw sen tenue xëy sa am na ñu koy def c'est parce que il y a un relâchement dans le contrôle mais dafa am commission bo xam mom moy ni yi yii tenue bii lañ sol mbaxane bi ni lay mel yere bi ni lay mel couleur bi ni lay mel mais fekk na légui maintenant on donne à n'importe qui la possibilité de s'habiller comme il veut mais mu vraiment parce que gis nañu vraiment il faut le dire aussi des dérives hein sur euh, au niveau du sur le plan religieux quand même des gens qui sont là en uniforme, etc. Vraiment, qui s'attribuent des, des, des, des, prérogatives, vraiment, il faut que nous disciplinions. Mais là, nous avons du courage, comme on dit. mais di des di et puis ces ministres là vraiment aussi vraiment il y a des gens qui sont habilités à parler le jëm ci affaire sécurité le jëm ci tenue etc quoi vraiment euh, nous yem fi quoi. Mhm. ministre de l'habilité wax ci euh, la sécurité mooy le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diom, mhm. au départ euh, dafa doon euh, réfuter teesu nervi ba récemment il a dinañ une ay enquête ouais ça euh, na quand même ci askanu Sénégal ñu def attention ci vidéo yi parce que euh, c'est pas parce que da ngay gis benn vidéo rek ci saa da nga wara a tirer <coughs> conclusion moom à ce reproché euh, askanu Sénégal di leen ko jox comme conseil et pourtant loolu la police def jël une vidéo rek voilà tête ko te def ñu preuve de prudence. absolument mais c'est ça la contradiction quoi comme ni ma ko encore sànq parce que police limuy pour convaincre nit ñi mais du vidéo bi yëpp la ben benn séquence rek la woné parce que séquence boobu ñoom yaakaar nañu xëy na buñ ci jappé dañuy mëna convaincre nit ñi mais ñi ñi jéem convaincre ñooñu non seulement am nañu séquence mais film bi yépp lu ñu yor quoi waaw motax vraiment vraiment euh, il doit faire beaucoup attention faut pas fragiliser les forces de défense et de sécurité ñom film mu defi ñoo yoré stabilité de bi de waaw souvent xam nga on dit euh, la justice c'est le dernier rempart nu mu ci de la démocratie je veux bien mais pas matar mhm. dès yi nga xamné amna coup d'état yépp les magistrats ils se ils se ils se rangent comme tout le monde Quand tu vois, quand vois Qu'est-ce loo contesté li ñu lay li donc nous, avons xam ne une force de défense et de sécurité Nous avons bu ñu Nous fragiliser avons n'importe qui de sol tenu. Nous avons n'importe qui de nous interpeller Nous avons aussi Nous jëfin nañu fexe ba ñi bañ parce que li nga ça s'est passé récemment c'est dans toutes les télévisions les grandes télévisions vraiment du monde Le ko ñi Bon, non seulement ça entache la crédibilité de l'institution, hein, de ses forces de défense et de sécurité, mais ça, nous nous dit, décrédibilise même l'État du Sénégal. C'est une enquête, bobo. vraiment, nous ne sommes pas parce que nous ne sommes pas ñan enquête je crois qu'il faut que nous jël des gens soient vraiment euh, euh, indépendants au niveau international même au niveau national il y a des gens qui sont effectivement bokk mais dès ko police rek ak gendarmerie c'est déjà vraiment biaisé comme euh, comme approche mmh